problème boobu. gis nga seen tocco yi seen kaas yi suñ koy def. ma damay jaar su ma oto seen biir dañuy suñ demee dañuy tàcc <laughs> parce que on a toujours été culturel. dañu soree l'histoire de truc chaîne politique machin dugguñu ci loolu. jusqu'à ce jour. ay dem toj télé ay dem toj lii. bon ñooñu. mais léegi les gens ne savent politique bi. ñun hmm. ñu ngi ci digg ñànkatang bi. ay tey jii oh, nous par exemple 2STV a fait Macky Sall 2STV daanaka a fait Ousmane Sonko et cetera et cetera et cetera tey 2 moo génne image yooyu yëpp. mais mais moo tax moo moo tax yow tontu nga. parce que moom xam ne yow xam nga ne képp ku fi jaar jaar na 2STV soo bëggee falu fa nga jaar donc nu léegi ñun aussi qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce a à reprocher. on on est en train de faire la religion dignement uh-huh. defe naa ni sunu télé bi moo ëpp oustaz <laughs> sunu télé bi moo ëpp oustaz Sénégal. waaw côté boobu de. dans la religion. Uh-huh. waaw côté boobu moom. noo ëpp ay animateurs et animatrices. Uh-huh. oustaz moom am nañ ko ci langue yëpp. waaw donc léegi on a rien à dañuy dañuy delluwaat ci personnel bi dañuy delluwaat ci ci ci ci El Hadj naka lay naka lay nekkee ak personnel am naka ngay nekkee ak sa personnel. man yar rek ak tegi moi je vis avec mon personnel comme je vis avec ma famille. Hmm. xam nga. ñu ci bari nañ ne sa personnel nga gën a jege sax que sa famille. waaw parce que man ma première famille c'est évidemment c'est la famille effectivement mais aujourd'hui man ma famille. Hmm. fi ma gën a perdre suma temps. quand je dis perdre mon temps ñi ma gën a nekkal dans la journée et dans la nuit c'est le personnel c'est les travailleurs c'est les ouvriers sa je remercie beaucoup le bon Dieu d'avoir des ouvriers des gens bien te en dehors de ça <clears throat> ñoom laa xam ñoom lay àndal e puis bon on discute de beaucoup de choses mm. et moi je suis un de famille te xale c'est des enfants ñi si gën bari dañu ñu fi am na ñu fi am trente ans c'est 30 ans de de mais les les exemple les les maam lañ may wax dañuy ñëw këf sumay casquette tu as un MP et tous ces gosses là bon. c'est ça la vie c'est ça c'est ça c'est la vie les ouvriers les agents et euh, pour qu'une société fonctionne. Uh-huh. qu'une entreprise fonctionne. pour qu'une maison fonctionne même chez toi à la maison il faut que tu sois proche de ta famille. mais tey ni nga projet ak sa sa sa sa personnel man euh, sama problème mooy naka lañ ni ngay def bay ko ak ñoom ku ci mel ni par exemple le cas de Cheikh Diaby parce que réseaux sociaux bi gars yi ñu ngi bind Cheikh Diaby soulever point wu Cheikh Diaby Cheikh Diaby. mais Cheikh Diaby mais. parce que dafa am ay images yoo xamante ne. nettement c' est des c' est la 2S quoi. da gis nit ñoo xamante ne seen image c' est la 2S. dafa mel ni bii bu xëy dem di DTV wala beneen télé dangay ngay xam ni que kii lii télé fi mu toog jàpp ko. xam nga xam nga Diaby. xam nga jaabi demoon na maa ko dem jëli. Mhm. mu ñëwaat lépp loo gis ci àddina ay relation même homme et femme day jeex nit ki mën naa am ambition boppam dem defi yëfi boppam. ok jaabi il a même eu un décès tout dernièrement. Mhm. mais j'étais à Bruxelles et il a une délégation qui est allée voir. jàmm moom moo tax mu mu dem quoi. je l'appelle on se parle. Pierre Goudiaby m'a appelé pour des trucs j'ai dit prends-le il est excellent et c'est un garçon formidable. Mhm. mais nag aussi mënuma yore entreprise ne ñëpp fii la ñu deewee c'est pas possible. ku ci am ambition ku benn affaire wala dem défi dans un truc de de Ancha Touré était chez nous. quand elle a demandé à aller au ministère de de de de. de la santé. de celui qui a été limogé là comment il s'appelle. santé Diouf Sarr je ne voulais pas dire le nom. waaw waaw donc voilà parce que kooku bon da ngay waaw quoi. waaw encore plus bi la. waxoon naa ko waxoon naa ko loolu moom waxoon naa ko. il fait partie des ministres yoo xam ne. Mhm. yii am na ñeneen ñu war a limoger sax. Ah. parce que loolu il faut que si <laughs> si Macky m'entend très bien y a des directeurs de société. Mhm. qu'il faut virer. qu'il faut envoyer. amuñu njëriñ je ne sais pas où. c'est pas que amuñu njëriñ xam nga. xam nga soo. dañu accessible si tu si tu c'est pas question d'accessibilité. Mhm. dañu dañu amul yar sax amuñu yar. amuñu yar amuñu teggin parce que état grincement yu bare yoo xam ne des yoo xam ne defuñu politique defuñu leneen ils sont tellement amoureux ils aiment tellement Macky Sall ou ils aiment tellement ab Wade ils aiment tellement tel yow ñu nommé le directeur. Mm-hmm. de société. Mm-hmm. nga war a defar nit ñi ay këyit nga gis ku jógee ci àll ba wala ki jógee France ñëw war a toppatoo son de domaine mu rang pendant di mois. wala mu dem quelque part il doit chercher des documents il n'arrive pas à les personnes personne ne travaille Mame Boye Diao tu ne peux pas au téléphone depuis des mois et des mois c'est des gens à virer non c'est mon fils on l'a fabriqué de toutes pièces chez nous <laughs> ouais, tous ces gens-là doivent partir en parlant de Cheikh Diaby sama xel day dem yar ci justement. on lui journaliste qui était tout le temps <laughs> on a besoin de lui on ne peut plus le voir man c'est eh pas mon cas je le règle samay <laughs> problème document domaine machin je le règle mais c'est pour te dire tout simplement politique gouvernement li ko yor mooy ceux qui sont autour les directeurs de société les chefs de service les responsables mm. il faut qu'ils soient accessibles parce que dangay gis kuy graisser na waaye si gouvernement bi nii nangam nangam nangam fekk il n'est même pas politicien il ne fait même pas de politique mais c'est parce que il est dégoûté et déçu parce que kayit li mu waroon am kayit pour ñibbi wala am kii mënu ko am les gens sont renfermés les ministres ne répondent pas au téléphone personne ne fait son travail ku nekk boppam la tal te loolu itam ça fait partie aujourd'hui du malaise de de de de du fonctionnement de la République loolu j'ai dit encore fois ces gens la doivent partir parce que nit ku amul solo amul njëriñ dans un gouvernement war na dem yoonam muy ministre yeeg muy kii yëpp laa ci yemale parce que loolu c'est une demande sociale les gens grincent les dents parce que tout les gens ont des problèmes c' est ça mais mais est ce que parce que parce que parce que c' est ça. mais nag ñun am nañ ay ministres yoo xamante ne tamit Mamboy certes invité nañ ko fii ci ci ci encore plus bi. su ma juumulee ñun. ma ne Mamboy est ce que côté invitation am nañ problème boobu sax ma ne Mamboy dem na ba nekk yoxos fii. il était tout le temps ici tout le temps il était ici. mais peut être am nañu si ministre des am na am na y a ah pourtant. moi am na ay exceptions ah. a des ministres y mais ils doivent sauter et partir. dëgg euh, moo tax ñu bëri naan non père bi dafa xaw xool. père bi ma dara man dama tàng xool man yàlla sédd na ma lu ma am. Mhm. tout. au Sénégal Dieu, Dieu m'a tout donné. Mm -hmm. Et je remercie beaucoup le bon Dieu. Et là, tu mais j'ai pas d'amis, j'ai pas d'ennemis. Moi, je m'en fous. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, c'est pas mon problème. ça, <laughs> mon problème, c'est quoi Mon problème est que, mhm. les choses fonctionnent. Les choses fonctionnent. Mhm. soo jógee fii war a dem toppatoo sa passeport que tu puisses avoir à temps nga dugg avion dem dem liggéey. Mhm. soo soxlaa carte nga am ko. soo soxlaa lii ci Sénégal nga am ko. mais tu ne peux pas avoir ce que Dieu t'a donné parce qu'en mettant des gens en place pour ñu jox la say kayit c'était tellement simple tu reçois à la fin du mois un salaire nga war a xëy da ngay xaar ba 17 heures 18 heures nga dem liggéey jusqu'à 20 heures nga dem ñibbi personne ne peut te voir et tu ne règles aucun document les gens vont se frustrer aller insulter le président wala aller insulter des ministres c'est pas possible il y a des DG yoo xam ne du ñu wax ak seen il rend compte directement au président la république il s'en fout seen yoon nekku ci loolu. d'accord ok d'accord <laughs> man. loolu euh, mënul ma loolu loolu ah, loolu mënul dem fenn. et le président leur a pas demandé ça hein parce que le président ne peut pas rester chez lui et rester dans ses bureaux pouvoir contrôler et savoir tout ce qui se passe dans ce pays la ñoom ñoo war a yombalal administration war a yombalal chef d'État war yombalal gouvernement bi li affaire yi war a demee nii ni yi war a demee. mais c'est un problème. balaa ñuy dugg léegi ci TDS bi dañuy jël benn question internet euh, Yacine Thiam mi ngi naan euh, euh, vu sa état d'esprit. lan nga xalaat sa avis jox ñu sa avis ci transhumance yow. transhumance. Mhm. transhumance musum baax fenn. que soo gëmee dara. Mhm. da ngay toog jàmm fekk la fa wala musiba fekk la fa mhm. jàmm. nga séen musiba ngi ñëw nga bëgg daw laxatu jàmm dina la rombaat dem transhumance mm-hmm. musul baax fen <laughs> man li ma xam mooy genre coalition c'est-à-dire que nga am idée déggoowuñu on n'est pas dans le même truc mais qu'on se parle et qu'on se regroupe administration noonu la demee e et et et et là j'en profite d'ailleurs euh, je te pose la question. Mm. comment tu peux être premier ministre. wala nga nekk dans l' administration. nga nekk dans un gouvernement. ñu folli la rek nga dem nga dem feneen. parce que tout simplement folli nañ la. nga commencé yow tamit sànni xeer. mais am na ñu ñuy folli ñoo xam ne demuñu ah. waaw mais justement non waxuma ñooñu. Hmm. man ñii may wax mooy ñii ñuy folli ba pare. jéem a créer parti parce que tout simplement. Euh, kii nga xam ne peut-être que c'est des gens frustrés. oui mais wala li leen folli moo neexu dañu yaakaar dañuy faru mais oui mais mais mais yooyu. yooyu man ma gëm loolu mënuma gëm loolu frustration frustration en quoi yow tu as fait si si on te frustre si on te fait des trucs da ngay jéem a seet naka nga mënee naka nga mënee. collaborer ak ñi nga nekk am na ñu bëri ñu fru yoo xam ne ils étaient frustrés mais demuñu fenn. est-ce que jàpp tous les moyens sont bons pour mën a atteindre sa principal ennemi. problème bi mooy. dañu hmm. waxante dëgg. ku nekk sa poste ngay lambal. ku nekk sa affaire ngay doxal <laughs> la plupart d'entre eux ñi ngay wax ne ils son frustrés wala ils ont vie c'est parce que tout simplement doxatul ils son partis faire leur truc man gëmuma man gëmuma ay problème problème yooyu gëmuma ko mais est-ce que jàpp ñu foofu la jamono ji toll ñoom a leur niveau. jamono bi dafa yàqu rek chacun maintenant pense comme il veut fait ce qu'il veut c'est pour cela que euh, addina bi jaxasoo. mais yéen comme genre yu mel nii lan mooy nekk seen rôle alors ci bu jamono bi tollee fii. moo tax on rencontre les gens comme les genres Sonko on rencontre d'autres jeunes. Ouais. Ah. on rencontre d'autres personnes on leur di voilà ça ça ça ça et ça. xam nga jamono gënoon na métti fii bruit bi gënoon na métti fii. Mhm. est-ce que tu te rappelles de Talla Sylla. oui moo gënoon célèbre fii ci trouble man il a fabriqué une cassette que j'ai dupliquée. marto ya <laughs> fàttewuñ marto yi. dégg la nga de mhm. mais boobu temps jamono bi egul nii di dem di toji wala di dem def yenn yi. mais cassette boobu Abdoulaye Wade la doon wax. parce que. xam nga euh, il faut dis il faut dissocier les choses boo yi di kaas wala nit ñi di kaas la plupart d'entre eux ne sont pas politique kooku depuis jamono même bi ñu nekkee ay xale grève de daanam ay 68 machin yu demee noonu da ngay gis ku nekk yor xeer gars yi di yuuxu ah mbaa ah mbaa nit ñi di yuuxu xamuloo sax li nit ñi di yuuxu lan la. Hmm. la plupart des jeunes dañu topp troupe yi di dem rek xamuñu. D'autres, c'est le mouvement. ñeneen ñi ils ont faim ils ont des problèmes looloo waraloon ils sont partis casser ay Auchan toog ay lii toog ay laa. si tu vas tous les jours ngay gis brosse à dents quelqu'un brosse à dents am na benn boutique boo xam ne benn benn kii brosse euh, nu mu tudd les tubes de de de de. brosse à dents brosse les les de. Euh, signal la. pat pat pat dentifrice pat kuddu vingt cinq francs mu bësal la nga dem brosser tu payes y a cela dans les quartiers. côté Fouta xanaa Matam wàcc. mais du Matam fii ci Ndakaaru nga xam ne les gens sont fatigués mais nag yàlla yàlla aussi ay moo yore ay mbiram mais c'est des choses yoo xam ne. Euh, qui ji moo demee noonu. tu as vu la guerre en Ukraine la guerre en Russie. d'accord y de problèmes da bi yëpp ay problème la. waaw ah, bu jug beneen ñëw de. addina yëpp ay problème la waaye nañu maandu rek. Eh, yéen question yi ngeen wax nii yëpp bu ñu ci bëggee ñëw day metti mënuñu di citer par personne. Ah, dix neuf personnes lañ wax dix neuf personnes jàpp leen ni ñëpp a ngi ci. Pape Djibril Fall a ngi ci Yaaw a ngi a ah ok dix neuf personnes c'est Euh, am na yeneen ñu gën a amoon importance sax ñi ngeen ni lim nii euh, euh, dañuy ñëw ci <laughs> dañuy ñëw ci TDS bi. TNT ah. bi déjà balaa ñuy ci TNT bi. Ah. ci TNT bi laay njëkk parce que pour nit ñi gën a comprendre. Hmm. déjà TNT bi pourquoi marché wul Sénégal pourquoi. parce que des na. non TNT ça marche ça ne marche pas dans tout le Sénégal d'abord lan mooy TNT. Pourquoi TNT TNT télédiffusion télé numérique terrestre. terrestre. Uh mm-hmm. -huh. Avant c'était de l'analogique c'est-à-dire mooy antenne yooyu mel na ay rato. Mm-hmm. léegi antenne la ñu indi ay émetteurs yoo xam ne c'est du numérique dañu ne. dans chaque pays aujourd'hui d'Afrique il faut que ki nekk dans les village les plus reculés mun a seetaan télé avoir la même qualité d'image ki comme ki nekk Dakar loolu mooy TNT mhm. pour résumer donc état bu ci nekk war naa def TNT pour que nit ñi mun ko xool dans toutes les régions amuñ malheureusement contrat bi ñu état bi signé woon état moo ko waroon normalement def dans certains pays état bi ci boppam moo waroon financer créer société am comme TDS. Mhm. TDS ñu jox ko xaalis mu mën a placer émetteurs yi le plus rapidement que possible pour affaire yi dem. Mhm. mais l' du Sénégal dafa signer avec la société qui s' appelle Excaf. Excaf ah, qui a eu beaucoup de difficultés pour d' abord installer tous les émetteurs pour avoir tous les décodeurs et cetera loolu du ma ci dugg parce que ça a été pas peut-être une erreur. mais c'est pas une chance pour que ça puisse réussir. Okay. Donc euh, Excaf a fait, a joué son rôle, a essayé de tout faire, mais c'est difficile. D'abord économiquement, parce que dañ ko jox ay mux donc ay canaux yoo xam ne daf ko war a exploiter. Mhm. su ko exploiter am ci xaalis war a mën a installer état bi donc ay TNT dans les régions c'était ça l'idée. Mhm. Malheureusement ça n'a pas marché. te télévision di indi xaalis télévision mënuloo ci am dara tu ne peux rien avoir à la télé da am notoriété. Mm. am li ci des. bon donc euh, ils ont signé une convention avec Escaf contrat bi c'est un peu flou combien d'années combien il faut d'années il faut exploiter et cetera pour mën ci dugg finalement tout le monde a vu et on y a des problèmes donc Escaf dafa am même des problèmes. donc euh, de trésorerie. Mm -hmm. liée à plein de choses plein de problèmes que je ne peux pas. moi expliquer mais expérimentés que vous est-ce que ñu mënul woon ñëw indi apport si touche bi. mais est-ce que amoon na offre de marché. bu taxoon yéen ñëpp ku ci nekk ñu xool kan mooy. la personne idéale l'entreprise euh, adéquate par rapport ak seen seen. demande ma personnellement. Mhm. bi chinois y commencé di ñëw. Mhm. man maa wax ak président nekkoon na seet sénégalais bu ko war a def. man ma ne Sénégal sénégalais yi man maa wax gouvernement bi. parce que yow loolu nan parce que Ben Bass était le pionnier dans sa ki ko mën nañ ko jox ki ko mën. waaw hmm. donc c' est un sénégalais je me suis battu. et je me rappelle bien j'ai je me suis battu parce que chinois yi ñoo ko naroon def. mais je n'ai aucun regret nag de l'avoir fait parce que c'est un sénégalais il a essayé. Mmh. il y a une partie qui a marché il y a une partie qui n'a pas marché donc loolu je défendrai et ci période boobu noonu pourquoi porté woon pour jël marché boobu noonu. mais man je ne peux pas tout faire et c'est pas mon rôle. je ne suis pas un financier je ne suis pas une banque. moi je suis un artiste je suis créateur de télévision le reste c'est pas mon problème. je ne peux pas c'est pas un problème d'argent ou problème leneen il y a même des autorités qui m'ont posé la question pourquoi doo ko def ma ne ko ma ko defee j'aurais perdu du temps et je ne peux pas le faire c'est mm. l'État qui doit le faire li war a def man mënu ma ko def. Finalement, l'État a créé la TDS, la télédiffusion du Sénégal. Ouais. C'est-à-dire que c'est le, le, truc était à l'envers. Ils auraient dû créer la TDS. Avant. Avant. Même sous des deals avec Benen Société, la TDS, c'est pas mais Finalement, aujourd'hui, la TDS, télédiffusion du Sénégal, les plus RTS Warona Def, qui transmission, sur diffusion, prérogative, yo, yep, RTS Defatuko. La loi a dit maintenant, la RTS, elle est scindée en deux. nañu def seen production def seen journal def seen ñimi ñama def quelques trucs mu jeex li ci des c'est la TDS qui doit le faire contrôler gérer les autres chaînes de télé parce que RTS mënul mënatut nekk concurrent chaînes yi ba pare dellu di gérer ay télé c'est pas possible. d'accord dañuy ñëw ci ci parce que temps bi par rapport à ça est-ce que kon mën nañu jàpp ñu signaler ci mel ni ay coupe du monde coupe d'Afrique euh, yeneen chaînes yi mën nañu ñëw nekk ay concurrentes xam nga quelqu'un m'a posé la question l'autre jour. Mhm. Euh, xam nga les droits muy droit CAN muy droit euh, coupe du monde. Mhm. c'est des privés qui sont propriétaires. Mhm. c'est des privés qui sont propriétaires ñooy jënd droit yi. la ñu dee moo ko daan yor di ko jaay télévision africaine yi pourquoi ñu koy jaay les parce que c'est les États qui ferment les yeux et qui mettent l'argent xam nga xaalis bi bu mu jógee mais man du ma jënd coupe du monde parce que j'ai pas l'argent amul benn privé bu koy jënd d'abord doo ji xaalis bi un milliard et des poussières nga jënd droit les États l'achètent pour des télévisions nationales pour permettre au Sénégalais de regarder Sadio Mané et les autres voir la té la coupe du monde te yow mënuñu toog coupe du monde ñëpp di seetaan ñun amuñu droit yi xam nga loolu mënut a nekk. Mm-hmm. donc ñoom ñiy jaay droit yi xam nañu fu ñuy amee xaalis xam nañu état yi ñoo yore xaalis te état yi danañu fay te les états payent avant d' avoir les droits avant de recevoir les droits accréditation bala ñu koy jot ñu récupérer seen xaalis d' ailleurs pression boobu la ñuy dóor état yi. aucun ministre des finances n'a envie de payer des milliards pour des trucs de dix quinze jours mu jeex aucun. d' accord mais c' est une obligation par contre. Aujourd'hui, c'est possible, si la TDS a de l'argent, mmh. a la possibilité de payer plus que l'État, l'État va se dire, ah, alhamdulillah, j'ai ma société que j'ai créée, elle va acheter les droits, elle va revendre les droits à qui elle veut. Si 2STV veut acheter certains matchs, si euh, TFM veut acheter certains si telle chaîne veut acheter, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut que la RTS puisse diffuser parce que c'est truc de l'État boo xam mm. ne c'est gratuit partout donc looloo tax droit kenn moomu ko Sénégal amul droit tant que jënd ko yow tey soo buggee am droit yi soo mënee payer plus fort que l'État du Sénégal waa ji c'est un juif il te vend les droits yoonam nekku ci loolu <laughs> d'accord ni nga comprendre ni euh, droit yi ak entertainment hmm. est-ce que tey ak innovation bi nga def ci làmb ji hmm. waroo woon sauver tey hmm. lamb ji parce que tey bi nga bàyyee diviser làmb ji kenn nangootul diviser promoteur yëpp dañu dañu dem ci tey ci ci PPV mu bokk ci loo xamante ne bokk na ci li ray làmb ji. waaw est-ce que lu tey ñu woon dimbali promoteur yi. di mm, jënd droit yi man du ma dimbali benn promoteur. ah bon promoteur nekk dimbali naa ko. mais je me suis toujours retrouvé des problèmes. dañ lay jaay droit dem jaay keneen droit yéen gis ngeen am na ay promoteurs yu bare yi ma interdire sax ñu dugg seen làmb parce que dañ lay signaler këyit ba pare roccee ko bëgg a jox keneen gis ngeen loolu. Mm-hmm. bugguma citer ay tour